tekki ndombal tànkam maanaam génn ci euh, groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar euh, tàmbalee di dingat euh, doxalinu nguruk Macky Sall yéen cabinet Mimi Touré moomule mu ngi wut doole ñamu fegool ngir mun a jaamarloog nguur gi waaye nag bu ñu deful ndànk mun na caa wet lool yéen cabinet gannaaw waa Benno Bokk Yaakaar may ñu jàmm Mimi Touré ñu ngi koy dingat ci doxalinam ci jamono jooje itamit opposition bi. daanaka euh, bugguñoo buggaguñoo dalal Mimi Touré ndax ku jég politique baa ngi fàttaliku Mimi Touré na mu daan doxalee ci nguurug euh, Macky Sall laata muy génn euh, ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien yaakaar ne Mimi Touré mile bu deful ndànk dina am jafe-jafe ngir am ku mu fegool ci géopolitique bi mu ngi ci yéene kabi di Walf Quotidien bokk na ci tamit championnat yi ca Europe suñu gaynde yeeg fuñ ci toll wàccaayu Qatar 2022 boobule euh, coupe du monde euh, mu ngi ci wàll Walf Quotidien yéen a kàbbi di las ne Dakar moo fas yéene doon célèbre yoonu euh, Afrique jëm ci wàllu jàmm ak karaange Dakar fas yéene ko daloo forum bu yaatu forum paix et sécurité lu ko dalee bëccëgu tey ji yéen cabinet dañu waxtaanee nees mun a def ngir gën a euh, ñongal ak ñag euh, Afrique euh, ci wàllu terrorisme bokk na ci xeex terrorisme doon lu sabab sax ndaje gi ni mel forum ci wàllu jàmm ak itamit kaaraange mu ngi ci laas musiba Mbabakumba am ca Thiès ab jàngalekat gañ fa fekk ñu sànni ko ci àll ba yéen cabinet Farmata Ibrahima lii lay wuyoo jàngalekat la goo xamante ne mu ngi waroon a dem ca fa mu waroon a jàngale ji bees war fa doon directrice waaye nag euh, ci yoon wa lañ ko faat euh, las xëy duñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk yéen kaa di Dakar Times euh, juróom-ñetteelu sommet gu ñu jagleel wàllu jàmm ak kaaraange ci Afrique Euh, mel na ni nag dañoo fàtte ndaw ñekk jigéen ñi ci forom bu ndakaaru wara ubbi tey euh, yéen cabinet bi jox leen ndaw ñekk jigéen ñi rawatina ndaw ñekk seen waajur euh, ngir ñu mun cee addu ndax bari na lu sooke tey ndaw ñu bari di soobu ci wàllu terrorisme ak yeneen ak yeneen mooy ñàkkum xëy ñàkkum tàggatu ak financement ak yeneen ak yeneen. ak itamit ñàkk jot euh, ci courant beek euh, ndool meek euh, xañ leen seen ax ak yelleef wàllu démocratie ba tax na ci bile ndaje waruñoo fàtte ndaw ñeek jigéen ñi mu ngi ci Dakar Times yéen a kii bi di enquête mu ngi ñu dégtal li tax kii di Karim wadd Euh, soxlawul euh, benn yoon amnistie yenn kaa bi xëy ñu ko jàngatal euh, delluwaat dellusiwaat na ci protocole bu Conakry bi fi woon ak tamit li sookee maître Abdoulaye Wade Baye Dia itamit fexe ba giifal dossier Karim Wade ci février 2019 yéen kaa bi xëy ñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk yenn kaa yi di l'évidence mu ngi ñuy dégtal. Amnesty gañuy lam-lamee ne eh, Karim Wade xalifa Sall war nañ ko mun a am eh, Khalifa Sall Amnesty googe jëmee ci ñoom bu ñu deful ndànk mun naa doon luy gàllankoor eh, njiitu réew mi Macky Sall wala boog du gàllankoor njiitu réew Macky Sall point d'interrogation la Ismaïla Madior Fall wax na ca l'évidence xëy di ñu dégtal docteur Abdourahmane Diouf mi wax ak Amadou Ba premier ministre ne waxtu wa jot na mu amal déclaration de politique général Eh, bokk na ci tamit ne eh, ñaari kàddu rek la ñuy xaar ci amadu Ba eh, bu ca yeggee. na jaajëfal njiitu réew mi Macky Sall maanaam na wax ne Macky Sall na xamal askanu Sénégal euh, ne leen au revoir euh, bokk na ci moom na premier ministre jaajëfal njiitu réew Macky Sall ndax nguuram jeex na euh, bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdourahmane Diouf mi génn yàggul ci coalition Aar Sénégal troisième mandat ak coow li ci am Moustapha Kane joxe na ci xalaatam l'évidence ne ca département bu Foundiougne ndaw Benno Bokk Yaakaar ñu ngay jaajëfal di itamit di dooleel Moustapha Mbaye mañ fa fal bees euh, bokk ci au conseil des collectivités territoriales moom njiital euh, conseil départemental bu fu euh, Foundiougne mu ngi ci l'évidence yéen a kaabi di critique Karim Wade ana lu tax ba ba léegi. Euh, daanaka muy tendeefal yéen kaa bi xeetu ñu ko yëggee euh, lu jëm ci révision ñeel procès fan la ci gars yi toll amnesty gañ koy tuddal euh, maam jaara Fam bu PDS xotti na taret googule amnesty ne du fi amee ndax Karim wadd lañ koy tuumal dara amu ca ba ñu koy seetal mu ngi ci critique ci xëtam Pape Diop njiital bokk gis-gis ana lu tax joxuñu ko ko au conseil des collectivités territoriales. Euh, doon lu euh, critique euh, bëgg a xam yéen a bi di libération dañu xam lekk actrice di kuréel gi jóg ngir xeex drogue jot na teg loxo ab labo ca Wokam jëm ci wàllum defarum drogue ak blanchiment de capitaux yéen a bi ne ab doomu Nigéria fës na ca lool ak ñam ca fegool bokk na ci sax kenn ci jege ñaaleem Ibrahima Dabo teg nañ ko loxo ca mbir moomule Euh, yéen kaay baag ñu dégtal yi tamit euh, xeexoo gu métti amoon ci assemblée générale euh, goo xamante ñu ngi ko doon amal foofee ca juma bu amitié 3 16 yaa fa mujjee jolli ci coow la fa juddu yéen kaay bi di libération xëy ko leeralal. yéen kabi di la mandat ne njiit réew Macky ñu ngi koy xaar alxamis gi ñu jëm eh, ca Thiès war a jublu ci tegum xeer wu njëkk eh, ñeel eh, classe préparatoire yamuy fas yéene tabax ca Thiès waaye nag Massaly yéen cabinet Massaly Mamadou Lamine Massaly jukki na lu toll ci fukki million jëm ci mun fa dalal njiitu réew mi Macky Sall Ibrahima Sène bu PIT maa ngay dànk dankafu ay cadre APR eh, jëm ci eh, majorité présidentielle bekk na muy eh, doxe yéen a bi di des échos xëy du ñu dégtal kii di procureur Alioune Ndao moom mi fi jiite woon CREI yi ci jamono wax na ci ay dossiers yu bëree bëri CREI yi gamu jiite woon diggante mag njiitu réew mi yi Sall diggante mag maître Sidiki Kaba wax na ci Aminata Touré wax na ci Karim Wade dossier Karim Wade ak la ca laxasu yëpp ci wàllu finance maanaam koppar ak xarga fuufa moom procureur Aliou Ndao euh, waxtaan nag les échos yéen a di direct news xëy waxtaan ak euh, député Abdoulaye Diagne euh, moom euh, forum international bu Ndakaaru ak lañ cay xaar ci Afrique wara moom boppam ci lu bëree bëri googu lépp ndajeek ak i tamit ne chance la bu ñu demee ba njiit réew Macky Sall jiite tey Union africaine. ngeneen la ci euh, mim réew di euh, Sénégal mu ngi ci direct euh, news yéen a kii bi di 24 heures xëy di ñu degtal wala boog di laajte ana lu sooke mbàkki yu fay di sàkku lu toll ci juróom-ñeenti milliards ak yu toftal waa firi yéen a kii bi ñu ko leeralal 24 heures ne Malick Gakou moom ñaawlu na kàddu yi tukkee ci Gaston Mbengue mi ko tuumaal ne gàkku moom lay day liggéeyal njiitu réew mi Macky Sall. yéen a kaabi di la vrai journal ne njiitu réew Sall am na jafe-jafe yu ko tënk ci jamono jamono ji bu weesoo ñaxtu liggéeykat yeeg entreprise yi tey ji gis nañu coow li ne ca boy ci Benno Bokk Yaakaar euh, jafe-jafe coowal troisième mandat ne këtt ne jon yéen a kaabi xëy duñu ko leeralal le vrai journal yéen kaabi di réew mi euh, quotidien ne élection présidentielle 2024 euh, des na naam waaye candidat yi teg nañu teel nañoo yëglu xaat ndax lim bu takku ci ay candidat euh, tàmbale nañoo fësal seen bopp fas yéene dagaan baatu askan wi ana lu ci teel a yëglu bi fësal seen i candidature gis nañ fi maître Abdoulaye Tine docteur Abdourahmane Diouf ba ci Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen Euh, bokk na ci ci candidature maître euh, ci candidature njiitu réew Macky Sall ma ñuy laam-laamee euh, Mary Teuw Niane gis ne dina doon lu ko bett lool bu njiitu réew Macky doone candidat ci le wote tànneefu njiitu réew ci 2024 yéen kaa di la dépêche mu ngi ñuy dégtal euh, nganub njiitu réew Macky Sall ca Thiès ni ki alxamis ji Mamadou Lamine Massaly jukki na lu toll ci fukki euh, million euh, jëm ci itamit teeru gàkk yeneen ak yeneen ngir mun fa dalal njiitu réew Macky Sall Massaly dal na ci opposition ba ne ca Thiès yéen a kaabi di euh, turbine mu ngi ñuy dégtal euh, càmbaraat euh, procès Karim Wade ndax mun na ne kam déet Karim yéen a kaabi ne lu ko war mooy laaj amnistie ngir war caa mun a génn ci bile dossier war a mun a am sañ-sañu wote falook folli ak i tamit fal yéen a kaabi xeetu ñu ko leeralal. yéen kabi di euh, l'info mu ngi ñuy tegtal euh, chef de cabinet bu njiit réew mi euh, Macky Sall kan Kane ne àndul ci troisième mandat njiit réew Sall warta dagan baatu askan wi ci élection présidentielle yu 2024 yéen kabi di le soleil mu ngi ñuy tegtal. ndaje mu yaatu ubbiteb euh, forum international de Dakar sur la paix et la sécurité euh, ndaje gu ñuy waxtaanee wàllu jàmm ak kaaraange euh, yéene cabinet ci diirug ñaari fan lay doon sottante xalaat lay doon duguleet bi mooy juróom-ñetteelu ndaje ci Afrique waaye nag bi la yoon Dakar moo ko dalo di Sénégal te ñetti téeméeri participants lañ ci xaar bokk na ci googu lépp ndaje ay chef d'état yu bari ñu ngi leen fi xaarandi bu ñu sukkandikoo ci loo soleil lépp nar a doon ci teewaayu njiital Union africaine di njiitu réew mi euh, Macky